dal leen ak jàmm ci info 221 seen bi leen di jox xibaar yu wér te wóor abonné leen ngir dara bañ leen raw ngeen jëf mbokk yi internet info 221 wàllum xibaar ba tey jii aju ci mbiru ONAS docteur Cheikh Dieng daal dinañ ko convoqué waat ni ki tey ca gendarmerie ba moom enquête jëm ci bi ko wutale woon ak euh, ki bi dina wuy ci waate tey jii ci talaata bi waa section de recherche bu Colobane bu gendarmerie bu Colobane beneen audit la ñu fas yéene amal bu ñu sukkandikoo ci les échos nga xamante ni euh, kii di Mamadou Mamour Diallo ak euh, jotoon na sax na nag at diggu ñi ki 14 octobre njëkk bi ñu rejeté nag tuuma yi nga xamante ne teg nañ ko ci moom weddi na ko bam set wicc ci woto bi nga xamante ne nii na 80 millions de francs CFA la ko jëndee loolee taxoon sax nag njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye dàqoon ko ci poste bu mu nekkoon jamono jooju Aziz Dabala ca euh, camp pénal la ñuy wutale Nabou Leye nag mi ngi daal di xamle ab njumte ci li nga xamante ne moo am ci génnum àdduna Aziz Dabala ak kii di Boubacar Gano ñu gën ko Sall ñu faat nag ci seen appartement yu nekk ci Pikine Technopole lu sori bu dala nag fi nga xamante ni fa la dëkkee les écoles ñu xamal ne rek ci xatam na xam ne ne Nabou Leye mi ngi nekk ci kaso bi ba tey ji déposé nañu ab mise liberté provisoire ñu may ko nekk nag liberté provisoire niki altine bi ñu weesu jaarale ko ci ay jamono jooje moom mi nga xamante jàpp nañu loxoom génn ci génnum àdduna ki nga xamante rek moo di euh, Aziz Dabala journal bi di ñu xamal rek fecckat bi waaye tamit nekk artist comédien euh, moom nee na xamul élément factuel ak li nga xamante ni dañ ko koy tuumal daanaka daa jàpp na ne moom daf doon défendre boppam ak enquête waaye déposé nañu daal ni ki yàlla bi ngir ñu mun ko bàyyi loolu lañ ci mën a xam daal di doon loo xamante ni dina yomb ngir ñu mun ko bàyyi mu am liberté provisoire jamono ci nga xamante ne jëm ne réew mi yëngu na waaye tamit ñuy bokk ak kii di Abdou Aziz Dabala bëgg ñu dégg dara lu dul tëj ko ci kaso bi ndaxte faat gu mu faat ak loxoom buñ ci dugal en tant ki nga xamante ne jige woon na ko loolu ñu xàmmee ko ci fépp ak lépp